asalaamaaleykum mbokki internautes yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey ñu ngi jóge ci open press Bombardier waaye tey ba tey ñu ngi fi nga xam ne mooy kër Bombardier waaye dañ fay fekk Cheikh Niang Cheikh Niang nag gis nañ carrière am yëpp ci wetu Bombardier la ko defee naam ñu ngi koy gis ci ki nga xam ne mooy booy ñaa waaye tey boo nee Cheikh Niang Cheikh Niang bu Mbour la ñuy wax du ñu Cheikh ñan bu cees du ñu seex ñan bu booy ñaa mag la nag ci ki nga xam ne mooy booy Niang waaye nañ ko bàyyi mu nuyoo ba pare Cheikh Niang nuyu naa waaw sama jigéen sama xarit maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Wassare Lamb yëpp di leen ñaanal jàmm di kontaan ci déplacement bi ñëw fii ci mbuur ñëw jël si open presse Bombardier di leen siyaar yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm. Cheikh Niang damaa dajeeg yow stade ma ne la Balla Gaye Boy Niang nga ne ma loolu du combat ak combat bi da nga jëloon combat bi trop oyofal. non combat woon sax parce que oyoful ndax Balla Gaye ku ne xam na ne champion la non wallaay oyofalu ma ko xam nga waxinu làmb rek la. mais Balla Gaye ku ne xam na ne champion la te def na lu nekk ci làmb te ndaanaan la te wax dëgg yàlla Balla Gaye combat ak Boy Niang Balla Gaye mi ma xamoon ci combat ak Gris Bordeaux Balla Gaye mi ma xamoon li mu indi li mu indi ci Boy Niang defaroon na am na doole barki Seexul Xadim mais nag lamb moo demee noonu loo mën a wax ba déstabiliser sa adversaire da koy wax waaye Balla champion la te indi na la mu indi yàlla may ñu ndam ci kawam. mais Seye da ngeen a tolloon fu ngeen toll di wax naan affaire bi du du xaalis. gémb li du xaalis di ko damoo ba loolu dafa mel ni moo ñëw. non xam nga am na yoo xam ne moom bu rombee rek nan ko bàyyi. bu du ma ko bàyyi ci garaawul xamalu na. boobu léegi dama la non loolu lépp stratégie rek parce que wax dëgg yàlla ku amul xaalis lu bari doo ko mën a def parce que xaalis lu bari moo koy def mais loolu waxin la. parce que làmb jooju dégg naa famille dégul dañoo teg jeexal. waaw mais loolu la parce que da koo jaroon am na loo xam ne su ko jaree da nga koy def boo yoree benn sànni tàccu sax def ko ci sànni fëgg say te xam ne la ca kanam moo daax parce que lii rek lañ bëggoon muy ndam li parce que daan Balla Gaye wax dëgg yàlla jar na lu nekk te ndax Balla dafa doon un grand champion boo xam ne def na lu nekk ci làmb doon champion boo xam ne ku ko daan kenn dootu a xeeb ci làmb ku ko daan am jaloore kon dañ koy ñaanal jàmm mu dellusiwaat ci làmb ji ak jàmm parce que nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku baax la amul benn jafe-jafe. mais seen seen slogan da ngeen a ñëwoon ne daan Balla Gaye moo leen gënaloon doon doon roi des. non loolu ñun mosuñu koo waxaan ah, nit ñi ah. billaay di ñee koy wax rek moom ñun mosuñoo wax loolu mais daan Balla Gaye moom mooy roi des arènes rek ndax ku doon roi des arènes ku ko daan daan nga roi des loolu moo ci nekkoon te booy bi dafa amoon fu mu toll woon ci làmb nit ñëpp ku nekk naan booy ñaa mënta daan poids lourd booy ñaa mënta def nangam booy ñaa nangam ak nangam loolu moo taxoon booy ñaa ñëwoon nag pour dëggal boppam wane boppam wane moom mooy kat ak li ne moom mu wane ko te na booy ñaa li ci biiram wane gu ci dara tuuti la ci wane. man sax dama leen ko dama la booy Niang dañ koo jox ñaari examen mu faussé ko est-ce que boobu noonu. daal examen sax nit ñi ñoo ko jàppee faussé mais man gisee wu ma ko faussé man jàppee wu ma ko loolu toujours ma wax loolu. xamal ma wax lool Lac de Guiers da cee daj lu métti. kon non ko Lac daj lu métti. yóbbu ko ardo duma ko ba muy bëgg a dee moom ba muy bëgg a ba muy xoox di daw di rasu deful dara loolu laa la wax lu mel ni mi di laay wax ak yow amul benn combat bu booy Niang ñëwee di yat yati mbaa mu wane ñàkk jom lu bëree ba dee ñoom la déggee nag ay poids lourd lañ bu dikkee téye seen bopp ne defuñu dara ngay bëre ñuy rasu di daaw fu ne ñu dugg fa mais booy ñaan loolu rek la mën ci ñoom la déggee ku ko fi daan. contre Tafatin. contre la fa xew lépp ñoo ko def. Tafatin ki dee mu dafa génn def open press am mu ne nawloowul ki nga xam ne mooy booy ñaan ci biir open press. mais mbaa moom booy ñaan naw ko moom moo la wax loolu. ci biir open press. moo wax loolu moom Tafatin. ñu ne ko sa digganteeg booy ñaan mu ah, moom kii bi moom kii ko booy ñaan ko daan Balla Gaye mi ko jàpp duma ko daan ko koo daan nan bàyyi yooy ñuy wax Boy Niang ku ci roofoog moom boo génnee di ko nawloo moom nawloo na Boy Niang bu ko nawloo wutoon day buddi Boy Niang ba taxaw dóor ko ci suuf jéggi ko dem. mais Boy Niang taxawul de. taxawul de jàppanteeg moom laa ma ci amul jàppoo laa lay laaj. Ah, taxawul de Boy Niang laaj dama lay ndax. cinq cinq sorties la de. waaw dama lay laaj dama ne la ndax combat bi am na jàppoo wala amul jàppoo. amoon na jàppoo Boy Niang deful ay kale di bëri def lu nekk man su ma la mënee bu ma la jàppee dama lay buddi ba taxaw dóor la ci suuf mu jeex mais yow nga jàppanteeg moom mënoo ko daan muy bëre bëre woo nga bëgg a ñëw naan ay nawlaw moo ko yooyu ay wax la ñun sax yooyu romb nañ ko doo passé nañ ko xam ñun ci lu ne ci suñu kanam la ñuy wax tafatin du moo moo ñu daan par lan ñu ne avertissement léegi romb nañ ko ndax daan nañ ki ko daan pare nañ ci ñun ci leneen la ñuy xool ñun moom na lijjanti kon du ngeen ko gëstu luñ ciy gëstu moom na nekk ba génn ci sama dof bi na nekk ba génn ci sama B52 mi door a wax leneen moom loolu jartoon na sax mu koy wax ci jaru ko di jartoon na yow am nga sa bis bu ne weng na nag ba lijjanti bii ba pare doo a wax ay nawlawu ma diw na nag ba lijjanti Bombardier mii sama waa ji <laughs> ba dimanche. balaa ngaa ñëw ci tafaatin ak Bombardier da ngay ñëw ndax boo booy ñaa daa jël tambaraan saa bii bi nag ki nga xam ne moom moo jël roi des arènes quatre ans kenn gisu ko fenn mu boole keeg pat ak teg def ngeen erreur de. ban erreur. Modou Lo. non ñun ci kanam rek la ñuy xool. yàlla na combat boobu yàlla na ko suñu borom taxawal. ah da ah dimanche ngeen di signature combat. loolu ñun loolu dégg nañ dimanche dañuy signature dimanche dañuy signature mais des na. Ah, looy wax ni. waaw ah, man de loolu laa jàpp ndax amaguma dara loo xam ne leer na ma ne combat bi taxaw na dëgg-dëgg dimanche ngeen di signature dimanche ngeen di signature laa ci am ci ay wax. ci yooyu la ñuy téye kon jàpp suñu jàmm dimanche la ñuy duma du ci sori ci loolu mais li ma la wax daal mooy booy ñaa ku mu mënti jëlee koo mënti doon. ku ko jël di nga xam ne am nga xale bu saf lam doon wax am nga combat loolu moom lu leer la ku ko ci jël di nga xam ne am nga bis am nga combat ndax nag garab ci kaw lay fekkante. du ñeexum ñebe. boo ñaaw du ñeexum ñebe it boo ñaaw ñeexum ñebe la. boo ñaaw tax ma ne xale bi tas na Sénégal fi mu ne de du ñeexum ñebe de moom it te kenn feesutut bëtam nag. bal barki alxuraan ku fees bëtam gisu ko loolu moom leer la. ku yaakaar ne da ngaa am loo am ak loo àndal ak loo doon ba tax teg ne Boy Niang dafa am dara lu mu teg la bët mbaa mu mbaa nga fees bëtam lijjantiw ko. mais nag Cheikh leen jàpp seen combat bii ni mu demee rek ngeen jël boo Niang bu ko teg ku mu yeggul de. Boy Niang fan la seen combat bii. fan la Boy Niang eggul laa lay wax. Boy Niang dafa prouvé def li mu war a def ba egsi fii mu egsi kon kay boo Niang kay au sommet la ne ca kaw la nekk loolu moom leer na nañ kon ñun yóbbuwuñ ko fi mu nekk ci ay wax moom moo ko jëfe ba egsi fa ndax ay wax yóbbuwul kenn fenn su fi toogoon di wax di wax di wax te jëfewul dara du dem fenn daa jëfe ba egsi fi mu egsi nan ko ko nangul. tey gis nañ fa ay tëgg tëggkatu Thiès ci open press Bombardier ni waaw samay rakk lan. Ah, ah dafa mel ni waa kër Boy Niang samay rakk lan Boy Niang ak Bombardier benn lan Boy Niang am na combat Bombardier am na komba Boy Niang jël ay supporteurs am ñu jàpp ci ndax ñu bokk teen ñooy laxasooy goj Bombardier sama mag la sama xarit la ñu yàgg lool maak moom ba dara dul dara sama rakk bu demee ba génn di pourve di def ci làmb fooyee fa làmb damay bëgg toujours gu jot ñoom ñaar ñu def nii parce que fu dara xajul dara xaju fa foofu damaa bëgg toujours gu jot rek jàmm di fa am ak lu baax ñu seetlante teraanga ndax dafa yàgg maak Bombardier te li ma doon wax rek feeg mi ngi takk ngembam fu nu gestoo ci am di leen ma gis ndax nit da ngay gore boo ñaan sama deret la deret deret moom daa jeexal laaj dañoo laaj Père Bourkhane mu ne écarté nañ Bombardier ci carrière Boy Niang du ñu bëri ma laaj ko lu tax mu ne ma soo demee ci Seex Ñaŋ nga laaj ko lan moo tax. waaw mais dëgg la xanaa déggoo li ma la wax léegi dama ne la fu dara xajul dara xaju fa parce que àdduna dafa am loo xam ne Bombardier tey di takki ngeen mu ne maa ngi bëree rakki Seex Ñaŋ loolu àdduna ku ko dégg xam ne rafetul la de Guiers lu mu bokk ak Bombardier amul kenn kuy ànd ak Bombardier ku nekk ci la de Guiers ku nekk ci Lac kuy ànd ak euh, mbokkum Lac de Guiers mu nekk ci Bombardier di ànd ak moom man nag sama deret ay ànd ak moom muy sama mag kon foofa dara xaju fa ndax daray àdduna jarul loolu loolu moom nañ ci noppalu. noppalu waaw. am ngeen combat su ma nee am ngeen combat wax la Tapha Tine da ngeen koo jël dix ans ngeen gënoon a nekk xale daanaka moo am fu ngeen jaaroon ngeen jaar jaar bu metti ngeen ñëwaat 10 ans Bombardier nekk ci 47e année moom mu nekk ci xale nekk xale toll ci diggu dooleem. kan mooy xale. booy ña kii Tafatin. <laughs> ban xale ñii génération Bombardier la nan bàyyi ay affaire xale yooyu xale amu fi mag goo xam ne magante woog moom ay 5 ans magante moom dara kon loolu xale amu fi Tafatin du xale kenn nan waxante li fi ne. Bombardier mageewul kii Tafatin ko 5 ans Tafa euh, Tafatin kañ la doon bëri tamit Tafatin ban génération la woon ay ñoom booy sëy bëriwut ak ay ñëw Boy Seye kalaaf ba da nga koo fàtte. waay yow nga naan ma ay xale fii xale amatu fi xam nga lu fi nekk Bombardier moom sax daal lijjantiwut xale mag Bombardier ku ko gis incha allah boor bu sumee koo ëpp xale doole. kon ay affaire xale yooyu nan ko jël teg ko fële jaaroon nan fi mu am nu mu demee. mu metti woon torop ci yéen ci ñoom moom it ndax. ah 4 ar doo fa am 4 ar doo fa am amul benn fu tafaatin faju jee bàyyi fa Bombardier lamb ja dañ doon faju ji ñëw ñoom ñaar ñëpp heure bu ko bomba bu ko tafaatin joxoñe ardo bomba de joxoñ ko ardo ñu dem faju dikkaat looloo fa am gën a gaañu moo fa am ñu arrêté combat bi jox ko victoire mais amul bu xam nga lan mooy duma man xam nga lu ma gëm ci ku ñuy duma koo xam ne da lay duma ngay dem ardo moom mu taxaw fi mu taxaw te du dem waaye ne yaa ngi koy duma te bu ngeen dee dem ardo man góob ma yooyu duma. kon kon daal tafaatin du kon daal tafaatin duma wu leen woon. num nu duma dumante danoo dóorante gaañante kee gën gaañu ñu arrêté combat bi nan wax loolu mais bu fekkee ne quatre ardo bu fa amee te heure bu may dem ñu ànd ñu faj la faj ma kon nan nga ma duma ay mbokam neen dañ ko doon deret barki Seydina Mohamed dañ ko doon faj Bombardier doon na tafaatin mu daanu sax ah, wax na ko nee keroog eh tafaatin nee keroog seen face à bi daa bàyyi Bombardier daa bàyyi ba mu ba lamb ba bi coupé mu profité déet ñaari bonkal yu xeex la daje dóorante lu muy xoole kon ban daa bàyyi ba courant bi coupé. déedéet courant bi coupé ñu dóor ko kon da xam xam kon nu waroon def arrêté combat bi jox ko fi ka tëdd tëdd lu na daanu daanu ñu jox ko suukar mu sex ñu yëkkati nguur mu bañ ñu jox ko victoire gars yi ne ko. jox ko suukar mu sex. waaw gars yi ne ko kenn du la jox victoire jógal nga bëri ndax lii victoire mënu cee am mu door a jógaat boobu ci ñoom ñaar ñëpp la métti looloo fi am te yooyu romb nañ ko incha allah rabi ba dimanche. est ce que xam nga ne mooy combat de les danseurs ci Bombardier. déggoo li tous les ci Tapha Tine combat tous les danses ci Tapha Tine. yow da ngay comédie wala nu mu. kan mooy comédie man da nga maa xam ci comédien da nga maa mës a gis ma suyee théâtre wala da nga maa gis. a xeex Tapha du taxaw ma ne Bombardier ndax mën naa xeex wala mën bokkuñu xeex Tapha day Tapha day jam Bombardier day def nii waaw léegi day def lan Bombardier ñëpp ci moom lañ xamee jam di Bombardier kay kenn musu koy gis muy laaw laaw Bombardier kay arrêt bañ na ko ba day dem MMA te MMA ku mënta xeex xeex doo fa teg sa tànk lu leer la wax ndaanaan dëgg ak boromu fi dafay dem tafaatin daal am nga bis incha allahu rabi te ba dimanche. te eh, yéen combat bi man dama gis Bombardier ngeen jël ko à la légèrement ma gis muy muy xàppi nees sa par rapport ak. Bombardier da nga ko mos a gis mu yenu combat. Bombardier danoo am combat ñun ay ñoom Balla Gaye seen i combat ko ñu ko Bombardier jëlee dañuy ñëw toog ci cumikaay li Bombardier di lépp mel ni ku new ci làmb di wax yeneen yoo xam ne nekkul ci biir làmb ji génn làmb ji di waxtaan ci yeneen. mais boobu du demee bii nu muy demee kon day ñëw di la mais nee naa la Bawol dañoo préparé lamb ji ñoo doog a gëm lamb. waay Balla kii Tapha Tine gënuñoo dëkk Bawol Bombardier Bawol Bawol la man jur laa juddoo kër Serigne bay Sarr te digg Bawol laa juddoo ñun ñëpp ay Bawol Bawol lan affaire du affaire Bawol ak ay Kajoor dimanche la incha allahu rabi yàlla nañu yàlla may fekk ak tal ba dimanche waaw Tapha dina xam ne baax na. mais eh, da ngeen di takk loxo Tapha Tine wala yéen yéen ni ngeen jëlee combat ñun gëmuñu ay takki loxo Bombardier moos ku ko ko yaakaar ci ay takki loxo demal nga toog ay loxo nga yor ay loxo la nu yor incha wa rabi bu dimanche di nga xam ne la woon fa woon du benn billaay walaay bu dimanche mu doyul sëkk tabaatin bu dimanche mu xam ne xolal baax na yàlla na yàlla may fekk. mais dama jee ñëpp dañ ne jeexal na ci làmb tey boo dékkee micro nit mu ne la combat bi Bombardier amu ci dara. Bombardier xale yee ko gën a jeexal tabaatin a gën a jeexal Bombardier Tafatine moo gën a jeexal Bombardier bu ne xool ci jeexal kii ku koy xool naan jeexal na xamoo li ngay wax jeexal xoolal ci ci bopp la fii am na fi xale yoo xam ne amuñu sax 30 ans te màggat nañu am fi ay mag ñu am 50 ans ba pare ne ci seen digg doole loolu kii hygiène de vie macha allah te gëm na boppam te day entraîné guddeeg bëccëg xale bu foog na yaa ko ëpp doole ba arbitre soufflé ban tëj barrière yi Tafatine loolu la foog ba arbitre soufflé ban tëj barrière yi mu xam ne bu dee mu ëpp Bombardier doole dina leer. combat boobu dóor mu daanu lu ne mën na cee am te incha allahu rabi bu dee dóor mu daanu yàlla nañ ko door mu daanu ñun. mais mais Tapha Tine dafa joxe deux minutes. Bombardier joxe cinq minutes. waaye boobu Tapha xam nga ne comme li Bombardier wax sànq nee na làmb mën naa jeexe sax ci une minute waaye une minute yooyu boo koy jeexee yàlla na fekk Tapha Tine jóg ñu dóor ko ci maasowaar mu ne ne mu ñu jéggi ko. muy une minute li ngay wax ni yomb na de. ah déet danoo ñaan moom lañ bëgg du moom la wax moom it moom li mu wax du force de da ko dafa wax lu mu bëgg moom Tapha Tine. gar tombe bi nag. waaye gartombe waxi xale yooyu ay gartombe gartombe yooyu amul ci làmb de gartombe am mbooloo ko doon def ñuy dóorante xëcc di indi lii ñaari nit a koy def gartombe mënta am foofu ñaari nit ay ñaari nit ay bëri yu naaw gartombe yu naaw gartombe amu fi de yàgg Bombardier la te bu arbitre tëjee barrière yi nga xam Tapha Tine la gën a xam Bombardier téeméeri junni yoon barki alxuraan. Tapha Tine nawlawul sax ci combat bi Bombardier. looloo koy rey nag Bombardier ku ko mën a si du ma ne daan la. du nawloo ko bu arbitre soufflé dina ko nawloo par force force billaay maa la wax lii baa arbitre soufflé dina ko nawloo ci nii wala ci nële Bombardier du góor gu ni. mais mais Cheikh Niang baadu lii ngay yebee Bombardier bii nag. lan laa yebee Bombardier di ndaanaan di góor yàgg ci làmb jiitu jiitu ñu ci gën ñoo xam ëpp ñu expérience ëpp ñu fit te dàqu ñu koo bëre Bombardier amul lu ko kenn di yebee lu mu jël moo décision boppam ndax damaa xam man ki may àndal dara jaaxalu ko. du tafaatina koy jaaxal. mais soo tey mbër bi njëkk a traité Bombardier tapet tafaatina nee na coolee fi nekk. moo tax ba ba mu ko ne ba mu ko waxee Bombardier nit ñëpp a ree ba ko waxee Bombardier ñi toog di ko seetaan sax dañoo ree yow Bombardier tapet la ah. kon kay jeex na kon amatul loolu lu ma ciy wax. di nga bari nga ciy morom koo taxaw ne Bombardier mu ne tapet la nee na moom xam na ko jee xam na ko. nu mu ko xamee. tëj nañ leen ci barrière ban leen loo gis quatre ardo ñu dem di faju juy dikk boo ma ja daa jéggi saako daa daw ngay dóor mu jóg muy ñëw ngeen koy jaayante ba lamb ja jeex ngeen na dàppe ay ñii nan nu may jàpp li ma lay xamal daal incha allahu rabbi rendez-vous dimanche mbuur gépp nañ mobilisé wu Thiès mbuur ñu ne ci ginnaaw Bombardier ñu yëngal ci kaw mu yëngal ci suuf duma tafaatin ba mu ne waa lay njaay daan ko ñun gar tombé wun dañ koy duma daan ko incha allah.